أعوذ بالله السميع العليم من إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته sëriñ bi noo ngi yëkkati sunu kàddu ci turu kilifa yii teew ci sa kanam di sa njaboot nu bëgg laa wax rekk ci lu gàtt mbooloo mi ni fi teewe ak kilifa yi leen jiite gannaaw bu nu amee ndigal ci as cheikh Ahmadul Muxtaar ibnu cheikh Mouhamadul Moustapha mi nekkal sëriñ bi fii ci Daarul Xuddus am ko ci jëwriñam sëriñ cheikh Mbacke Madina moom sëriñ Mbacke Madina am ko ci sëriñ Abdourahman mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootuk sëriñ cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma sëriñ bi ci ndigal yooyu. la mbooloo mii teewe fii ci sa kanam tey mbooloo mi nag sëriñ Cheikh Mbacke gaynde moom sëriñ Mbacke Madina mu ngi nii toog ci sa wet sëriñ Bassirou Mbacke Poroxaan moom sëriñ Moustapha Bassirou mi ngi nii toog ci sa sëriñ Moustapha Astou Buri moom sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma mi nga xam ne mooy président actif bu fédération bi mi ngi nii toog ci sa wet sëriñ Xaadim Mbacke mi ngi toog ci sa wet sëriñ Abdou Salaam Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde mi ngi nii toog sëriñ Omar moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi nii toog sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke. ñu di ko wax sëriñ Moustapha Amérique mi ngi nii toog sëriñ Moussa Mbacké moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacké mi nga xam ne mooy premier vice président fédération mi ngi nii toog sëriñ Youssoufa Mbacké moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma mi ngi nii toog sëriñ Assane sëriñ Ousmane Mbacké moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacké Gaynde Fatma mi ngi nii toog sëriñ Assane Mbacké moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi nii toog Serigne Ismaïla Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi nii toog Serigne Abdoul Ahad Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi nii toog Serigne Mahmoudan Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde ma mi ngi nii toog waaye sëriñ Khadim Mbacke moom Serigne Mbacke soxna loo ñu gën koo xam ci Serigne Khadim Louga mi ngi nii toog. sëriñ Cheikh Mbacke rakkam moom sëriñ Mbacke soxna Lo mi ngi ni toog seen rak sëriñ Jili Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna Lo mi ngi ni toog sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Madina mi ngi ni toog sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ mustafa Astou mi ngi ni toog sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Fallou Mbacke. moom Cheikh Mouhamadul Moustapha bokk ci président d'honneur fédération bi mu ngi nii toog waaye Serigne Cheikh Gaynde moom Serigne Mbacke Madina bi muy ñëw ànd na ak délégation bu mag danañ ci tudd Serigne Cheikh ngay Mbacke ànd na ak moom waaye sëriñ bi mbooloo mi teew fii du waa Touba rek fukki section ñaar ba Banjul ba diaspora bi ñëpp ñëw nañ ci loolu sunu mbokki Gàmbi yi sëriñ moor Diop. mi fa yor kàddu sëriñ mu Moustapha mu ngi ci jataay bi ak soxna Ami Ndaw ak ñi ñu àndal ñépp waaye itam seex si ñëw nañu ndax waa kër sëriñ Omar Diop bu Mbàkke yabal nañ fi délégation bu am solo sëriñ Cheikh Assane moom sëriñ Naar Amar moo ko jiitee ànd ak sëriñ Cheikh Abdou moom sëñ Modou Abdoulaye ak sëriñ Mbay Xëri Daara ak délégation bu am solo sëriñ Cheikh Diop moom sëriñ Makhtar Diop Cump mi ngi ci jataay bi sëriñ Malick dem moom sëñ Abdourahim dem moom sëñ ma dem mi ngi ci jataay bi waaye sëriñ bi Baye Modou Ndiaye mi nga xam ne bi sëñ Cheikh di sos liggéey bii bureau fédéral bi mu njëkk a taxawal 1974 75 moom rek moo ci des ci ñu fekke woon loola mu ngi ci suñ biir te amul lenn lu ñu def ba man ko ci waaye xam ngeen ne l'islam fi mu teg góor fi la teg soxna yi ba tax na liggéey bii. bi ko sëriñ bi sosee jigéen ñi ñoo ci gën a ràññiku ñoo ci ëpp ñoo ci ëpp pëstéef ba tax na sëriñ bi ànd na ak soxna maam ami Mbàkke moom soxna asuburi ànd na ak soxna nday Fatma Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke ànd na ak soxna asu Mbàkke moom soxna Kinne ànd na ak soxna asu Mbàkke moom soxna soxna asu Mbàkke moom soxna mbenn darma ànd ak soxna maam ami Guèye moom moom soxna may moom sëñ Modou Moustapha ànd na ak soxna ummi moom sëriñ Modou bu Sajang soxna na bu Mbàkke moom sëriñ Abdul Fatah soxna Aminatu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna Lo soxna Maymunatu Mbàkke moom sëriñ Mbàkke soxna Lo soxna Faati Xari Lo moom sëriñ Mbàkke soxna loo ànd na ak soxna Aminatu Lo Mbay bokk ci secretaire général fédération bi ak soxna maam Binta Ba. sëriñ Abdoul Ahad Mbacke moom sëriñ Mbacke soxna loo mi ngi fi waaye waa kër sëriñ Thierno Mbaye sëñ Thierno Mbaye xalifa sëriñ Ndiaga mbay Kéré moom it mu ngi fi ànd ak délégation bu am solo waaye naka noonu itam soxna yi euh, soxna Soda Mbacke. moom sëriñ Mbàkke Madina moom it mu ngi ci jataay bi soxna Aba Mbàkke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbàkke Gaynde Fatma mi ngi ci jataay bi soxna Daba Mbàkke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbàkke mi ngi ci jotaay bi soxna Mbodj moom sëriñ Mbàkke soxna mi ngi ci jataay bi soxna Xadi Silla moom sëriñ Madiba Silla mi ngi ci jotaay bi soxna Naata Silla moom sëriñ Madiba Silla moom it ngi ci jataay bi sëriñ Ahmed Sougou moom it mi ngi ci jotaay bi di ko bëgg Serigne Cheikh mbëggeel goo xam ne ku ko xam rek xam nga ni Serigne Cheikh lay nooyee mi ngi ci jotaay bi. bala ñu jox Serigne Ousmane kàddu gi nu xam ne rek ne dañuy sant rek sëriñ bi ci ànd gi mu yi ànd ndax sëñ bi daa joxe woon digal ci ñu def bisu zikrullahi sant waayis bu tarxiya ak ñu ñuy àndal ñu def fii ay bâche ak sonorisation li foor lépp. bi ñu defee ba noppi ñoom tey jii daa am bâche bi am na feneen fu mu waroon a ne ak sono bi waaye bi leen ko sëñ Ousmane waxee dañoo wax ne lépp lañu fi ba waxuma ba fi lépp mais dañ ko yokk sono bi de da amutoon ni baaxul dañ ko fi indi loolu sëriñ bi bëgg nañ ñu xam ne ànd gi sëriñ bi bëgg ci murit yi murit yee ngi jéem donte nag joxuñu sëñ bi lu sori la neexut àgg waaye ni ngi jéem suñu kéem laal kattan di fàttaliwaat ne alxames bi ñu jëm di la 30. ci la ñuy def bisu way dawlu yi di ñuy ñaanal ñi fi jóge ñëpp la dala ci maam Adama ba ci jullit bi mu a dañ koy ñaan lañ leen ñaanal bu ñu noppee nag sëñ Tuubaa lañ koy jox rek moo xam nu mu koy séddalee ndax li mu ñaan boromam ci ne moom mooy làquwaay mooy walluwaay mooy rawwaay looloo tax ñu jàpp ne war na noo mën a def ay bisi ñaan jox ko sëriñ bi mu séddale ko ñu ko moom ñépp Mbàkke bi ñuy ñëw waaj nañ waaj taayu ku jëm ci kilifaam. war a taataan war a duy raxas nañ sunuy ndab ba mu set fas yéene koo duy ci yiw ak tiyaaba ak yërmande yi ngeen feese te yéene ko jullit ñi rek bëgg leen koo jox moo tax ñu toog fii seen kanam kàddu tey yi nag ñaari kàddu rekk la mooy danañ jox sëriñ Mamoune Diop mu wax kuréel gi muy ittihadu at bàyyil xadiim li taawuni wa tamasuk bi diinil xawim fédération des groupement religieux et culturels des disciples de Cheikh Amadou Bamba bennoog yaakaar sëñ Touba ngir jàppalante ak dimbalante ak jàpp ci diine ji dëgër ji jub ji lislaam noonu la mbooloo mi tudd dana wax kuréel yi nu ñu sosoo ak nu ñu ñëwee ak nu ñu lëkkalikoo suñu noppee itam nag danañu jox sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma mu wax ci turu mbooloo mépp wax nag kàddu yu mbooloo mi dégtal ko sëriñ bi suñu noppee nag ñun ñëpp nag. ñu maase taatan déglu luy jóge ci sëriñ bi kon kàddu yi noonu la fas yéene tëdde mbokk yi noo ngi daarul mi nan këru xéewal noo ngi daarul mi nan kërug barke noo ngi daarul mi nan duy te li ñuy duy am na fi te du fi jeex mbàkke danoo bëgg a liggéey sëñ tubaa te yéen rekk lañ ko bëgg a àndal nun wutu noo mel ne yéen wutunu ko ndax mënunu ko dañuy topp seen gannaaw rek bëgg nag Mbàkke barke bi ngeen yor yoral ko sëñ bi ngir mu jëm ci taalibe yi loolu rek lañuy ñuy su fii liggéey bu mag la sëriñ Cheikh Amadou Mbàkke seen mag ya sosoon bëgg cee dajale jullit yépp waxuma laa murid loolu nekk ci kaw loosu kilifa yii ñu bëgg a àggale yéene joojee te yéene ja paase wut fexe na nit ñi am lu ñu jàpp ba mën a sàmm seen ngor na nit ñi xam seen diine xam àdduna ba kenn du leen mën a mën a nax te mën a jaamu yàlla lool dong ngay objectif fédération bi loolu dong la ñu bëgg ku ñu ci ñaanal loolu dëgg la ñu bëgg ku ñu ci taxawu sant nañ sëñ bi bu baax nag cant bu baax a baax boo xam ne kilifa yii ñoo wax ñu jotal ko ndax xam na ne mbir mi mbirama moo ko moom seq ko kenn. moo tax bi nu yëkkateeb liggéey te muy liggéey bu am solo bu jëm ci njàngale te moom ba mu njëkkee toog la mu njëkk a wax mooy jàngale rek na nit ñi dañ réer dal ne bu mu laalati suuf nag fekkoon magam ju baax ji sëriñ Cheikh du Mbacke gise woon ni mu gise moom ba taxawal ecole yu mag ñu bari génn ci sëriñ bi gàttandu nanu gàttandu nanu man nañ ne lañ ca waroon def lépp def na ko ndax li mu taxawal daa mënta ñàkk ay daara yuy alimenté université daara yu bari yooyu nag daa bokk ci sëriñ Cheikh taxawaloon kon sëriñ bi duñu guddal dañuy jox sëriñ Mamour Diop kàddu gi.